mbokk yi salaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu amaat mbégte dellu siwaat dellu siwaat ci guddi yi tedd yi fii ci weer wi TV ngeen ànd seeg sen mbokk oustaz Malick Ndiaye ni ma leen ko daan waxee rek ñoo ngi préparé benn juddu ñoo ngi préparé juddu gi nga xam ne moo sauvé ñoo ngi préparé juddu gi nga xam ne am tax maratiban minal malikil alami, jallad anil asri Eh, lu waay am yaa ngi ko amee ci barke lu waay teddle yaa ngi ko teddeel ci barke lu waay baaxle yaa ngi ko baaxlee ci barke mboolem lu mu mën a doon yaa ngi ko jëlee ci barke Sayyiduna Muhammad mbokk yi guddi googu guddi googu nag kooku juddoom bi amul ndënd amul morom waxoon naa la ko ndaxte mooy kan mooy doomi Abdallah ji wax naa la ko yaa Amina ki mu ëmb ëmb na ko ba ni mu koy imbee Amina biir bi jugul ëmb na ko ba nim ko imbee amina wàccuwul amina tufliwul amina xelam teeyul amina nekkul di naq di deret amina bu doxee ci mbedd mi dañaa ko anti umilti badaran sayidal umam mi moo yow ku jigéen ki fàttalikul ni danga ëmb te ki nga ëmb mooy sangu-sang yi bu ne sayidal umam yi mbooleem xeet yi moo xam xeetu yonti yàlla Muusa la xeetu yontu yàlla Ibrahima boo leen dajalee mboolem seen ñoom yonent yi amina nañ ñaan ko ki nga ëmb mooy doon seen sang waaye nag isa wadaxtihi sammi muhammadan am rayektumi ay kitmaanan fatax tani mi jamono joo ko imbee na ko tuddee ahmad ndax ahmad bii wasqala isa ibnu mariam yaa bani israila inni rasulullah bayna yaday min at-tawrit wa mubashiran bi rusuli yaati min baadi ismo ahmad kon yàllaa ko tuddee ahmad ca kaw kon ñu ne sang boobu nag mi ngi waaj a gane àdduna yaa ami naa ngay waaj a yëg ni xale baa ngi ñëw beneen émission sa beneen jotaay danañ la ci àggalil foofu yaa na lañ ko fa wax ak lan moo fa xew ci guddi gi salaamaaleykum wa rahmatullah